ahousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmanirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki donga tërbe yi sëriñ Saliou yi mbokki soppe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare eh, di baalu ñëpp àq di leen baal àq eh, bu ngeen gisee jotaay bi nag li ko waral mooy dëgmalaat liggéey bu mag bi nga xam ne mooy mbàdd liy toolu Xelkom yi ñi nga xam ne sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou yàlla fi yàlla yàggal loolu te may at mu jot dina ko sant dongay tërbiye yi ñu ànd kook jullit ñëpp ànd kook euh, murit yëpp rawatina soppee Serigne Saliou yi tey jii dañoo amoon ndigalul dem xel koom ngir saytu ju tool ya fa mu toll ci liggéey ba ñu àndandoo ci njiitu Serigne Abdoulaye Serigne Abdou Ndiaye jëwriñ ak mboolem jëwriñ yi ngeen gis nii yëpp ñu fekk fi sunu mbokki jëwriñ ya nga xam ne ñoo nekk ca daara ya ñu ànd wër tool ya xool liggéey ba fa mu toll xayma li tàmbalee tey ba ñuy jeexal déqi ak naaf ñaata fan lay war a tollool ginnaaw bi itam ñaata fan moo ciy desaat yoo xam ne dinañu bàyyi naaf yi ñu wow bañ mën koo liggéey loole nag yàlla dogal bañ ca waxtaanee ba noppi ñu tànn ab bis loole nag day loo xam ne rek xalaat ay donga la yu daje xalaat na lii mën naa nekk waaye du lu ñuy jàpp moom lañ àndaat nii ñëw ci kanamu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou am moom jataay boo xam ne nii am na solo lool fa mu tàmbalee mooy sant yàlla sant mbooleem dongo yi ci njiitu sëriñ Abdou Ndiaye gërëm leen xamal leen ne leen dey eh, nangug liggéeyub sëñ tubaab yi ak taw tawféex ji yàlla def rek. jaar fa maa waroon a sol sama daal jaar fa kon bu ngeen ma ko defalee day mel ni rek tawféexi liggéeyub sëñ Tuubaa boobu moo ci moo ci feeñ teg ci kàddu yi gërëm itam kàddu yi soññee. sellug liggéey bi nga xam ne daanaka lu nit di am ci ay jëf yu baax rek mi ngi aju ci ak sell mu gënee soññeewaat nag ci sellug liggéey bi ci mbàcc mi ak njëri mi ba ngooñ mi benn benn benn doomab gerte du ci ànd gerte gi benn feppam ngooñ du ci ànd ndax sellu googu day la ñuy tax a bàyyi suñuy kër tax ñooy sonn tax ñoo fanaan ci àll bi sellu googu rek moo ñu cey may lañu bëgg kon nag mu gën a soññeewaat ci sellug liggéey bi ndax mooy lépp ndax nit moom bu liggéeyee ba noppi kenn du fa jaar naan ku gaaw fii wala ku xëy fii waaye ku liggéey lii rek la ñuy wax liggéey bi nag bu ñu koy laaj fekk na mu sell wala mu ñàkk sell la ca sell nag la sunu borom di fay moo tax Serigne Cheikh dénkaane waat na ko baax te xam naa ne dinañ ci gën a yaata mu wax ne nag kon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre wi di ñëw muy vendredi 24 novembre 2023 nañ ko jàpp muy tàmbali liggéey xel xelkom bi bu ko defee kon mbokki dongo yëpp yëg loolu mbokki taalibe yëpp yëg loolu mbokk jullit yëpp ñëg loolu mbokk sopp yëpp yëg loolu xam naa daal ci gàttalu taxawaay bi loolu rek lañ ci doon di lañ ci doon di lañ ci doon euh, euh, leeral di wane ne Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Salih yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér jox na mbokki dong yëpp mbokki jullit yëpp mbokki soppe yëpp ndigal ci vendredi 24 novembre 2023 ñu tàmbali mbàddiri tooli xel kom yi yàlla nañ ci egg ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh